<laughs> koor yan ngëneel ñoo ci nekk jara profito di ko bëggee waat bu a baax moom Alioune Seye numéro 2 li ma leen wax rek a euh, ci li nga xam te ne moom mooy koor ci ay li nga xam te ne moom mooy kiiw ndax li wax rek nee naa ñun ay ndaw naam dañuy jéem mais yàlla xam na ni ñun li ñuy wax yéen ñu ko gën a maîtriser fuuf yéen ñi ñuy seetaan mais nag kon li may wax rek xam nga daal dañoo toll foo xamante ni ay jamono ñaan lañ nekk foo xamante ni comme li ñu naan ndaw boo nekkee ci yoon am na foofu loo war a def rek da koy def parce que yàlla rek a xam kon ni ko Alioune Seye 2 waxee ndax gis nañ ne balaa bi wàcce rek ku ko gis rek xam ni jaamu yàlla rek a fi nekk te ku dul yàlla suñu boroom lii rek wane nañu daal wane na bopp waaw moo tax daal c'est pas trop tard ah c'est trop tard na gaa yëpp jël seen xel ak seen xol yëpp wér ko ki nga xamante ni Alioune Seye yow sa saison tëj na ndax ñun xam nañ dañ laa aj <laughs> nga ne aha ah non wa aha mm-hmm. aha mm-hmm. mais ñi tëj bari na daal mm-hmm. dëggal la

am nga laaj non parce que Alioune Seye yow da ngaa tëj rek tëjaale se <laughs> da ngaa tëjaale waa Guèye waay tëj non non saison bi kay yaa ko tëj nag non saison bi kay yaa ko tëj gaayen sa paa bi waxuloo woon loolu. ah mais nag na la ko parce que waxoon na la sa combat ak ñàkk du am sa paa bi na la ko ah. Hmm. Hmm. comme ni coronavirus bi ñëwee nii rek daal programme ma war a dem rek su borom du am gars yi nañ yàqu yàq de non yàq ma loolu moom loolu moom xëy na mbir bu amee ku nekk nañ c'est pas mais mais nee nañ fii fii la fii information que ni combat bi du am. ok ok comme mooy vocal boobu déglu nga ko après ok kon ba ba ngay préparé te kenn woowu tamit ne làmb ji du ok. xam nga yow avant combat bi sax avant combat bi sax après combat bi sax dégg nga ndax ñu bari am na ñu la doon xeexal que ni Alioune dañ ko tooñ dañ koo lii mais après am ñeneen ñoo xam te ci làmb lañ dëkk lañ nekk jëw boobu sax xam naa dégg nga ko. Aliou Seye 2 mobilisation bu indi jënd ay ticket stade bi fees dell ñëpp pour moom waa làmb di ko ñaanal mu gëj a bëre pour mu am combat problème la mais gàllaaj gu ndaw googu ñu ko sotti rek sa way yàq làmb yëpp ñu bari ne maturité sa kii li ngay li nga doon li ngay woote ci maturité naan kay te eh, am na ñoo xam te neeñ Aliou Seye 2 bu ngeen mbër mbër def loolu daan ko taxawal bëre te Aliou Seye 2 réagiré noonu teg. alxuraan laa la waatal fii dee wallaahi jamono li may bëri mbapat bi yi nga xam ne ci lañ ma gën a déggee. déggoolu ma laa tëngéej bi du ma ko paase. ma mag alam ndaa moom doon forcé naan ma dinañ la rey àll bi ndax da ngay dem mbapat nii day nangam nangam nangam nii. boobu sama sama papa moo leen fooy fooy dem ci mbooloo nangam nangam doon jàpp loolu laa doon saxoo. mooy dugg xam mm-hmm. nga boo boo nekkee xale am doole. mën li ngay def car macha allah. ci loolu laa dugg nañ ci làmb ngay defee làmb affaire beneen affaire am na leen lu ci rafet. Mhm. mais man su ma gëmoon loolu su ma gëmoon loolu ba léegi weesu naa ko ndax ci gaay di dem ak di def lu bon loolu noonu mhm. alxuraan a na ne man xam naa ko te mën naa ko def mais sama am na ci loo xamante ni jàmb jaralu ko ok uh-huh. uh-huh. uh-huh. ndeysaan dëgg ne la mbir bu xewee ku nekk na nga koy na nga koy na nga koy na nga koy gisee xëy na ñu gis ne man damaa waroon a kii man bu ma ñëwee ci dugg su ma ne kii su fekkoon ne daf maa fekk sax sotti ma ay dem damaa war a moom maa war a mën ok am na pare ak dëgg la dama kuy toog di xalaat loolu amul vision pour yàq la comme fekk na waaye man man tamit fekk naa ah sama xaalis laa ci def def samay coono daa ngoon guddee bëccëg ñoom na am na képp ku borom xel bi moo jaar rek war nga xam ne kii moom yoon ko mm. Mm. booy nga jégg woon nag dama dama ci tontu sax mm-hmm. mais nit ku baax bi soon booy aale mooma aale aale aale ndaw aale ndaw mooy ki la sotti woon gàllaaj bi boo bi jaxase ko waaye jëliñu ko mais baalu na de. Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.

Alioune Seye lamb fay na ko.

am na lu mu la avance comme lan. ndax la ndeysaan mhm. Alioune Seye dañoo jël jëli woon promoteur muy Père Xarim Samb euh, mu ne sa combat ak ñaq jariñu daf koy tëggaat mu ne parce que gis nañ sax seen reliquat ba ni may wax ak yéen jëloo sa euh, euh, desitu reliquat. reliquat bi kan moo ko téye promoteur bi la wala waa CNG. Mhm, mhm. mais ce que promoteur bi yéen ñaar déggante ngeen ba combat bi jàllee ba tey. mooy père ensemble. séeréer bu nice tëjël. bàyyi Basirou ak Baara maam yi danañ seex. bul ka jamono maa